seen frère. ah xasaa xasaa laa la fekk. après ngeen maasaale ma maasaale leen ma ñaaw nañ ko naturel. xaaral yow bañ pare buñ pare. yàlla da ngeen ma maasaale. dégg naa fa la lay maasaale. ngeen di wax yëpp dégg naa ko. bu may gis samay fàllu yow filtre bi sans filtre moo dàq avec filtre. sama snap moo ko rafet nañ moom. mais wuy ma. waaw puusal bu ñu paree après li ngeen di wax yëpp dégg naa ko. maa ma maa sant gi. yow nag <laughs> <laughs> moo fi ne. mais man ngay seetaan. <laughs> yow li la métti li tegu ma la ko. tase leen Champs-Élysées. ñaanee na ngeen di Champs-Élysées. ma ne bakken bu rëy. Ah. yóbbu bakken. ah lu ma yóbbu eh. lu ma yóbbu xamoo. Ah. Ah. Champs-Élysées yàlla moo koy tudd parce que ñi fay def yëpp ay nit la. Oh, amul mbaam amul fas.